PDS bu Daaru Salaam ñoo ngi dànkaafu élection yi di ñëw ñoom ñu jàpp nañu ni seen candidat na doon keneen ku dul Cheikh Mbacke Bara Dolly bu sukkandiku si ñi amaloon assemblée général si fii si Daaru Salaam. waaj ay élection yoo xam ne mi ngi ñëw te ñun ñëpp ñu taxaw nag yàgg see sonn lool heure bu ñëwee rek ñu am lu ñu si naqari li ñu siy naqari nan mooy sag bu ñëwee baara dolli mi nga xam dañ koy jël teg ko fii muy def di dindi moom lañ bëggut te dégg. day maar laa responsable PDS responsable PDS. Cheikh Mbacke. Mhm. moom baara dolli moom lañ bëgg mu abal ñu. waaw ndax ñun ñii nga xamante suñu koñ bi xool nañu gerte fóot nañu lu ne def nañ ko. Mhm. amalu ñu benn njëriñ. Mhm. benn njëriñ amaluñu ko dañoo bëgg daal moom mu aban ñu ñu seet keneen. nga xam ni Cheikh Mbacke Bara Dolly nga xam ne moo leen wàcc muy lëmbee si réew mi parce que bu ne mu bëgg si am yoon loxo moom lañ bëggut dégg li bëgg mooy xool ku ñu doy ñuy jiital ko ànd ak moom def li ñu bëgg lépp daal dem. jigéen ñi nag bëgg nañu ko leen dimbali moo waral ñu yëkkati seen i kàddu. dañoo doyal si moom sëkk ndax gisuñu benn intérêt ci moom. amaluñu benn avantage. moo tax mu ñu bëgg abal. rajo bii nag jàpp na nañu ni alerte la si seen programme waaye bu leen léttiwul wala ñu firi leen dinañu gën a accélérer cadence bi sukkandikoo seen i